salaamaaleykum mbokk yi ngi topp ci seen site bi di 24 actu yi comme ni ñu ko baaxoo di ànd yenn saa su nekk rek ci seen invité de la rédaction invité de la rédaction nag nekk na loo xamante ni kenn ku ci nekk ràññee na ci seen biir kër gi di 24 actu yi ñu koy baaxoo di ànd yenn saa su nekk rek ci ay nit waaye tamit di xool tamit di gëstuwaale ci li nga xamante ne mën nañ ci la ñuy ci la ñuy yëngu tey nag seen invité de la rédaction nag dalal suñu gante ji gan gu mag gan yaakaar naa képp ku ko gis kenn dootu ko présenté fii ci dëkk bu sell bi di Touba waaye tamit kenn ko présenté ci ay gox goxaadi yu fasantikoo mu nekk ki nga xamante ne mooy Babacar Sambou nekk journaliste bu ñëpp ràññee fii ci diwaan bi euh, laataa loolu ñu bàyyi suñu gan mu nuyoo Babacar maa ngi leen nuyu soxna su ñu ngi lay nuyu di nuyu waa 24 actu di nuyu mboolem internet yëpp fépp fu ñuy topp si jamono ji si émission bi ngeen amal euh, di invité de la rédaction jërëjëf Babacar ci nuyoo bu am solo boobu comme ni leen ko junjee woon sànq ci bopp jotaay bi Babacar Samb bu nekk journaliste bu ñëpp ràññee fii ci diwaan bi laata loolu Babacar Samb donte am na ci ñoo xamante ne xam nañ exact kan muy Babacar Samb tey ñu bëgg nga présenté pour askan bi nga xamante ne xamuñu la kan mooy Babacar Samb. waaw pour mu présenter wu lu yomb la Babacar Samb c'est jeune un jeune euh, bu bëgg dëkkam def lépp loo xamante ni moom moo koy doxal mais bu dee si wàllub euh, état civil bon wax naa sama tur sama sant waaye maa ngi juddoo Saint-Louis foofu laa defee foofu laa jànge dalal leen ma alxuraan comme ni ñu koy faral di defee rek euh, tout saint juin boo amee euh, quatre ou cinq ans da ngay yendu ji ba ba ngay mat dal ba sax jamono yooyu li amoon mooy double flux maanaam xëy jàngi alxuraan wàcc jàngi école wala nga xëy jàngi école wàcc jàngi alxuraan wala boo wàccee alxuraan hmm, da école. da delluwaat e-, alxuraan ba boobu nag école da nga doon jàng suba ak ngoon. ba ma jàngee école ba pare euh, tamit euh, jàll naa comme ni ñu koy élémentaire euh, collège fu laa jàngee lycée Faidherbe am sama bac dem na université Cheikh Anta Diop. nekk si mbir yi góorgóorlu naa ba yàlla may na ma xëy. je un agent de l' boole ko nag tamit nekk un homme de la presse. di yëngu si wàllu journalisme. jërëjëf euh, Babacar ci présentation bu am solo boobu waaye tamit ñu gis ne Babacar Samb yaa ngi euh, nekk ci métier bi nga xamante ne mooy métier journaliste est-ce que mën nañu xam lan moo la dugal ci métier bi nga xamante ne moo di journaliste. waa li ma motiver mooy passion d'abord dama ko mës a bëgg ndax maa ngi fàttaliku bi may doon mineur sa doon xale dama doon faral di bëgg rajo loolu foo mu fekk maa ngi moom temps FM yi barewul mm-hmm. naa ak tamit RFI moom dama ko mës a bëgg. am si ay idole également ay journalistes comme ay Alain Foka. daan déglu aussi ay animation comme euh, Siar. bi nga xamante ni Claude Siar. mu ngi doon def euh, émission bu am solo yooyu. daan déglu aussi ay journaux journal télévisé yi mu nekk tamit lu ma bëggoon demoon naa sax bat leen di toppandoo naka noonee may topp affaire yi di koy topp ba euh, FM yi commencé bari émission interactive di am. aw moon nag ay moyens temps yooyu pour. mais amul woon kenn koo xamante ni ci biir euh, journaliste bi man na cité nga ne kii kat mooy ki nga xamante ne mooy sama référence te ci su ma demee ba dugg ci métier bi moom laa war a topp. ay référence euh, Omar de la RTS mosoon na ma neex loolu temps yi mu doon def ay euh, présentation journal télévisé wala muy def publicité bu dee au niveau international wax naa ko léegi Alain Foka journaliste la. nekk RFI di def média d'Afrique wala muy def euh, beneen émission bi archive d'Afrique yooyu daaw moon raw vraiment ñooñ bokk na si ñi ma gën a motiver euh, ma dugg si presse te dama bëggoon également tamit liir dama doon àbb ay journaux di liir daan daan xale laa woon sama nijaay yi sama morom papa yi grand place yi mm-hmm. ba xam dem bu nu paree journal may ma ko mm-hmm. amoon nañu aussi benn ICP maanaam kooku da doon euh, diriger euh, benn poste de santé à côté Saint-Louis dama doon faral dem may may journaux yi mu jëndoon bu ko liiree ba pare man bu mu bu mu génn tey suba laa koy liir temps yooyu tamit journal yi bariwuñu woon noonu te boobu xale laa woon ma teel la soog teel la bëgg wàllum journalisme voilà ba ne ma si duggee. maanaam bi nga nekkee xale da nga xawoon a sopp xaw a léegi daal genre yooyu mais Babacar dañu nemmeeku ne journaliste nekk na métier boo xamante ni métier bu métti la surtout comme par exemple nga nekk ñoo xamante ni mën nañ ne dañu la comprendre wala duñu comprendre yenn liggéey yi loolu tamit euh, ban jàngat nga ci am en tant que journaliste. waaw journalisme day xanaa dafa fekk nekk loo xamante ni kenn fortaatu ko. Mhm. dafa am ay kenn yu ko wër maanaam mooy ay barrières les règles yoo xamante ni boo ko toppee. àdduna noonu lay doxee dinga nga mën ànd ak àdduna kon journaliste bu mettee jàpp naa ni si ki koy euh, def la mais bu toppee li nga xamante ni mooy éthique ak déontologie loolu ñëpp xam nañ ko euh, doo sonn nga ñu formé la si école bi wala ñu bañ la formé l' essentiel mooy na topp lu ñu dugal parce que tamit il faut ñu rappeler que ni les grands journalistes ne sont pas issus des écoles jaar nañu dans les écoles de formation mais ils sont formés sur le temps maanaam dañuy topp ay ñu am expérience leen di jàngal ak seen passion bi ñu am euh, si métier bi noonu topp tamit digle yi nga xamante ni moom moo régir le journalisme. boo ko defee du am kenn nag jafe-jafe jamono lu mu métti métti muy guerre muy mbas mi am nii. muy ville religieuse comme Touba. naan dafa sensible si yéen joxe information yi. foo mënti nekk da fay nekk ndax journaliste waxul kenn tooñ. kon képp koo xam te ne da nga joxe information. Mm-hmm. dafa am la war làmbool. nit nga rek comme ñëpp mais li nga war làmbool bind na si kayit boo ko xamee ne doo def. mu nekk lu am solo Babacar mais da nga wax sa biir yi wax nga ne journaliste dafa am loo xamante ne mën nañ ne moo ko couverture dafa moo ko wër pour nit ñi maanaam ki nga xam ne dafa war dugg ci biir journalisme bi journalisme bi war na mën a xam exact règle yi nga xamante ne moo ci nekk mais dañu nemmeeku jamono joo xamante nit ñi comme si que ñoom dañu bëgg a feeñtale wala dañu bëgg feeñ ci net bi ak genre mel noonu tax mu dugal leen ci ba tax mën nañ ne euh, daanaka respect bi war a jox dëgg dëgg dëgg jëmi ci journaliste bi sax duñ ko ko jox waaw xam nga monde bi moo toll foo xamante ne rawatina lu moo buzz dañ koy utiliser nu ñu nu ñu neexee quoi. te ku nekk da bëgg buzz nekk au devant de la scène ñu dool benn moment boo xamante ne xamante ñu ñuy présenté. animateurs yi reporters yi ba si journaliste sax dafa am ñoo xamante ne ku nekk loolu mooy sa rôle. si biir journalisme. voilà léegi nag bon ñëpp veut devenir journaliste. foog mu am jafe-jafe. mais li ma la mën a xamal mooy dafa nekk un bu noble. ñu ñi sax ëpp nañ di ko tuddee seen bopp. parce que xamuñu dara defaguñu dara dañuy jéem di topp ñi nga xamante ni ñoon xalal yoon ñu mm-hmm. jàpp ni ñu ngi si yoon bu baax il faut rappeler que ñun xëy ñu xëy a dugg si dafa am fu ñu mm-hmm. bi ñu jógee université dañu ñëw ni dañu bëgg nekk journalisme ñu encadré ñu teg ñu si yoon di ñuy wane nii ak nii jàngal ñu écriture journalistique mm-hmm. bien que ñu ngi woon si benn rajo de la place bàyyi ma si ko sax mooy Walfadjri garaawul maa leen sant ñu nekk fa laataa ñuy dugg studio rek sonn nañu ñu liggéeyal ku naan El Modou Guèye doon kàngam si mbir mi liggéeyal ku naan Léopold Tamba kenn du ko nettali kenn du ko fàttali fii si biir Sénégal yàlla def aussi tamit mën nañu wax ni ñi ñu tudd ñu bare am na fu ñu jaar ak ñoom grand kamu bi nekk Walf Quotidien yàlla na ko yàlla yërëm jot nañ liggéey ak moom si Walf Quotidien bind nañ fa Jean Meissa ñëpp xam nañ ko doon un professeur. Mm-hmm. nekk CESTI nekk journaliste chevronné. Mm-hmm. liggéey nañ ak moom ci grand place daan nañ bind presse écrite loolu yàgg la du tey de. mais Babacar xam naa dugguma la mu nekk lu am solo mais Babacar comme dañu nemmeeku comme par exemple fi nga dugg sànq tamit euh, ñu gis ne comme ñu ngi koy wutaale ci euh, affaire journaliste am na ci ñoo xamante ni tamit euh, mën nañu dëkk tamit ci dëkk Touba wala ñu dëkk Dakar wala ñu dëkk ci yeneen régions yi mais bëgg bëgg par exemple loo xamante dañ leen ko jox ci seen poste leen ko neexalee ndànk-ndànk tax ñu joxe yenn information yoo xamante ni daf leen di leer ne ku ko dégg sax dafay xam ne carrément information bi wérul dafay xajamal métier journaliste. loolu yoon moo ko njëkk bañ maanaam wax lu dëgg tooñ ak jaxase parce que information moo tasoon réew Rwanda bi ngay dégg nii ñu nekkoon ñu commencé ñu leen tudd. avec seen président bi di Paul euh, boo xoolee am fu ñu jaar fu sore maanaam ay bottante si wàllu xeet yàgg na rajo Mille Collines tam koy tudd moo indi woon jafe yi parce wax loo xam te ni yenul maanaam bu la yàlla defee dem ba naan yaay quatrième pouvoir. looy wax danga nga ko war a segg. da nga xam ni yow askan yow donc la ñuy déglu. Mm-hmm. mais nag li nga wax am na dañ koy tàmbalee d'abord euh, si organes yu mag yi organes mag yi mm-hmm. benn genre bu naan revue de presse ñu koy def en général ñu si bare ñoom la dañuy di déglu waaye parfois tamit jafe-jafe yu bari yi génn foofu lay tukkeeku ndax sénégalais bi da naan lam daal. dégg nga li audio bi wax mhm. man ko dégloo ci revue de presse mhm. jàpp nañu lool fekk journaux yi ñoo bind kooku jël te boo xoolee sax déjà dafay am ñoo xam ne dañuy traité journalistes yi ay ñàkk wax dëgg te fekk affaire bi du loolu fekk kay revue de presse mhm. waa la mu bind wax ko wala xëy na jotu ko liir jotu ko liir na mu ko war a liire am na sax ku ma dégg ma leen tooñ mu naan <laughs> revue de revue de presse yi dégguñ tubaab non non mu naan ñëpp jàng nañ affaire mais lépp looy def na nga si ànd ak euh, ngor. bu fekkee danga nga muy kii def revue de presse ba ñëw ba si base bi nga xamante ki nga xamante ni moom mooy reporter bi. Mm-hmm. yow dana la fi teg mm-hmm. comme correspondant bi ñu ne dama xoolal foofu lu fa am nga envoyé ma ko. Mm-hmm. yow mën nga bañ a sori genre yi am na bu naan compte rendu compte rendu dangay wax kañ la fan la naka la kañ la xewoon ak lu ko waral yomb na boo ko defee wax na nga ko war a waxee c'est simple sonn mhm. bu dee da nga war a def koo xamante ne c'est une personne adverse mhm. à mon avis en fait yomb na demal laaj ko buñ tooñee kii kii toog tuumal kenn mhm. boo jëlee kii yëpp pare demal laaj kële jëlal ñaari waxi teg te nga nag yow nga bañ dugal sa bopp taxaw fee joxe information ngir yàlla bañ di commentaire commentaire beneen genre la waaye li yàq journalisme mooy di commentaire si biir compte rendu mm-hmm. nit ki ngay informé day dem ba benn instant du xam fu muy féete te moom yow donc la jàpp loo wax dëgg la. kon journaliste yi am na nañu part de responsabilité si mbas mii rek boo xoolee ñenn ñi bokk pas ñëpp ndax tamit société am na fu muy toll di joxe information mm-hmm. waaye tamit di ànd ak responsabilité mm-hmm. waaye du lu nekk rek la wax. parce que boo boddante xeet mën na am buñ ne waa diw dëkk tel nee nañ bu kenn dugg seen dëkk te mu bàyyi ko ci journalisme mais beneen dëkk bi bu ñoo ñëwee te mën na wax ne du dugg suñu dëkk. te bu yàggee sax dañuy dem ba dina manque de respect ak genre yu mel noonu. moo tax ku ci wax rek mhm. lépp looy wax na nga seet yàlla yàlla boo ko seetee rek doo sonn lépp loo gis ma xam boo ko waxee day yàq ah man de ma looy sama philosophie mhm. bu ko wax man dëkk yi ma dëkk di fi yeewoo. dëgg la man sama muridité mhm. dama koy wax ci kaw moo primé ci sama journalisme journaliste journaliste bi ma doon mhm. pourquoi mhm. parce que dama bàyyi dëkk yëpp ñoo fii samay waajur samay maam am ku ñu yaakaar mu tëdd fii du ma ñëw ci dëkk bii di fi wax loo xamante ni dama koy xeebe ba tax du ni du ma dinaa informé waaye ba may informé ba léegi yàqu ma. mi nga seet ko seetaat ko. seetaat ko mu nekk loo xam ne ku ko dégg rek dafay xam ne carrément lii dëgg la lu nekk kaw na fi. Mhm. da ngay xool avant internet di am ay mbir yu da nga daan gis nit ku rey nit ci biir kër. Mhm. gas ko suul ko wala nit ku sànq nit te du feeñ. Mhm. mais réseaux sociaux yi bu mu tax te boobaa boobaa gars yi doon koy mbir day am ñu gérer ko en famille. ñu gérer ko en famille ñu ko war a xam-xam ko mais dama koy siiwal. koo war lu bon kenn ko siiwal. man loolu mooy sama principe. en même temps comme njëkkante gi ñii njëkkante déjà information am na fii am na fii xaaral ma gaaw dëkk ko dugal sama site ak genre yu mel noonu tamit dina jur yu bari xam naa euh, loolu dinañ ci ne temps ci seen invité de la rédaction suñu gan tey nekk Babacar Sambou kenn ku ci nekk ràññee na ko ci diiwaan bi mu nekk journaliste bu mag a mag tey nag ñuy waxtaane li nga xamante ni mooy métier journaliste ak naka la war a mel yan ban comportement la war a yore Babacar ñu dikkaat lu ñuy wax affaire de concurrence donte mënul ñàkk sax ci métier yu nekk mais nag boo xoolee anam bi ñu koy defee moo xam ci télé yi la moo xam ci rajo ak yu mënti doon parfois nga gis euh, yenn concurrent yoo xamante dafay xaw a métti sa côté sax bu la neexee mën nga liggéey bi ñëpp xam ne yaa ngi liggéey mais tamit nga bañ a yàqal ki nga xamante ne a bokk même métier bi comme ni nga waxee sànq waaw concurrence moom mm-hmm. day seet maanaam day rafet mm-hmm. tegu si loi wu concurrence da gis ni parfois kii day am benn élément def benn titre mhm. bu méngoog la xew am ci ay vues yamambaay parce que dafa sérieux mhm. ndax nit ñi bëgguñ lu sérieux nag wax dëgg yàlla <laughs> kee am benn élément ngeen ne même élément mhm. mu ni pour ma raw Babacar Sam il faut ma titre que noo xamante ne ba mu ñaaw alors que boo duggee tu vois les mêmes informations les mêmes informations ñooy nekk ci ñaari organes mais ni nga ko defee moo bokkul waaw traitement bi tiitaata bi ñu ngi si kay defee titre normalement wax li xew yem ci ñu ngi ko yem la kii na xëy na day bëgg xëcc comme ni ko waxee sànq concurrence di nga si am mm-hmm. ay abonné di nga si am ay vues mm-hmm. mais nag tamit te nit ñi moom fa affaire a ñaawee ak mm-hmm. mooy ngeen bokk ànd bokk defeen affaire dañ ko defe nii lii la yoon wax nga xëy suba jaar ne loolu war la wor am si biir métier bi Babacar mu nekk yow moom sax am na yeneen ci mu mën a ba si ba si télévision yi am na si phénomène bi amoon ci koor gi gis nañ benn télé bi doon teg di woo ay ay ay ay ay ay confrères yi ñuy waxtaan affaire yooyu dafa xew beneen télé woo nag te ñuy waxtaan teg ko si si njëkk ak teraanga ay borom xam-xamoo fa nekkoon concurrence boobu mën naa wax ne loolu dafa seen dafa rafet ndax ku nekk yaa ngi bëgg public parce que ñun wax dëgg yàlla li ñu doon duñ ko bañ ñun ñun ay jullit lañu mais ñu ngi jaare si si kilifa diine yi si confrères yi kon loolu tey bu demee bay am télé lu ñu rafetlu la moo gënoon ñuy teg. si place boobu leneen mbir léegi nag bu demee noonu ku nekk respecte norme yi bañ a am saaga xeex ak yooyu concurrence bu saine la kon am na concurrence bu seen am concurrence bu mal seen si métier bi. Babacar mu nekk lu am solo mu mel ne ñu ngi ci catal euh, jotaay bi Babacar ñu gis ne mbas mi ku ne xam na ko mu nekk loo xamante ne lëmbee àdduna bi la nekk loo xamante ne mën naa ne jur na ay jafe-jafe yu bëri ci réew mi en tant que journaliste ngay dem parfois ngay dem fu ne wala ngay def yenn tournage yooyu euh, yenn jafe-jafe lañ ngeen ci man di jànkonteel. si mën a jàpp jànkoon wax wax mooy au début nit ñi jaaxle woon nañ dañoo tiitoon franchement ku nekk. kenn xamul fooy sa tànk ndax loolu xamuñu ko. Mhm. feebar bi gaaw na gaaw boo xamante ni wàlle bi dafa yéeme woon. Mhm. état bi nag jël ay mesures. si la kii bi nekk état d'urgence bi. moo mhm. waral couvre-feu bi guddi geeg yooyu. ak mesures barrières yi. mais am na benn lëj-lëj bu si xaw a am. dama naan coronavirus dañ war a gérer ak gox bu nekk ak ay réalité am pourquoi parce que lu bees la. boo indee ay mesures yu bees yoo xamante ni. gox ba xamu ko. dina am xët-xët loolu moo waraloon bi mu soogay am. diggante force de l'ordre yi. ak population bi amoon na jafe-jafe. kon nga jàpp ne jafe-jafe yi nga xam ne askan bi dañ koy dund ñàkk xam exactement moo ko waral. waaw askan dañu leen war a tette pourquoi ñu war leen tette dañ koy yelloo dañ koy bind ci constitution bi nekkul da ñëw jël sa kay rek lire mhm. tant de cas tant de cas wala nga dëkk dal danoo. indiscipline nga bàyyi ma si wax ji xamuñu dara. Mhm. dafa nekk jànguñu. Mhm. déedéet. wala comme yow mii en tant que journaliste nga féetee Touba nga bëgg comme par exemple nga bëgg ci buzz ak genre yu mel ne wax sànq rek tax nga jël waa Touba moom jan leen ay nangami cas yoo xam ne sax ku ko dégg sax yow benn daf lay xam ne carrément lii amul en même temps bokk na ci tamit li tax nit ñi da gën a xeeb. du créé cas dama yaakaar ne cas yi xanaa ñi ñoo koy ñoo koy joxe. Mhm. waa ministère la santé et de l'action sociale. ñoom 10 heures koy joxe. waaye parfois nag nga dégg si am na si ñoo xamante ni bon du ñu yem sax si kaa yi mais foofu dañuy man daal bëgguma wax parce que su ma waxee dañuy jël sa wax féetal ko fenn yaakaar ni dafa am koy wax la loolu ko demeewul noonu dañuy wax rek pour mu baax parce que yaakaar na ne ku nekk lu baax moo la tax dugg si biir presse yi leen daal xam naa ko corona bi jafe-jafe yëpp ñu ngi jóge si wàllu jokkalante communication diw day wax lii diw ni ko wax loolu dëgg mhm. diw bëgg xam ñu wax loo xamante ni dafa feesul si bëtam ñu ni kii dafa ñàkk bakkanam waa kër ga ni ñàkk ñu bakkanam ci corona bi lu ko waral mu ni parce que ñun kenn defuñu quarantaine mësul feebar wala mësul lii loolu dañ ko war a leeral te dégg temps yi benn audio ay femmes sax lu audio vidéo ñu naan ñun dañu fay pour ñu wax ñu dañu corona loolu mu nekk ay mbir yoo xam te ni ko war a leeral moo tax man la wàllu communication bi man co man kay yii yii nii yii ko États-Unis bi nga xamante ni mooy épicentre corona euh, du monde dégguma ko Brésil dégguma ko Chine dégguma ko Italie dañuy faju ba pare dem sa kër mhm. ñu faatu ñu xam ne faatu noonu mais Sénégal man maa ngi dégg daal ay supputation ay lu nekk si biir corona bi damaa xamul nag nit ñu ñooy créé xaw ma ñu naan gars yi neen am ñu wax ni la man nag yaakaar ma loolu franchement mhm. pandémie mondiale la ñëpp la laal wax dëgg yàlla leen dong lañ si sant yàlla mhm. li faatu fale faatuwul fii ñoom ñu ko prévoir woon jàpp ni def seen ay euh, def seen ay prévision ni ay millions et des millions d' africains dinañ faatu amul fii waaye man li may conseillé ci cadre boobu rek respectons les mesures barrières nee nañu yooyu boo ko defee feebar bi dina la daw ndax am na dëkk yoo xam ne ba léegi dugg fa. mu nekk lu am solo Babacar mu mel ni tey ji mën nañ ne daanaka mi ñu ngi ciy jotal waxtaan bi comme ni ñu la ko waxee woon euh, sànq Babacar ñëw tamit gis ne jamono ji comme yow tamit en tant que journaliste waaye en tant que père de famille ak yu mel noonu ñu yoo xamante ni ay 15 ans la ñu am 16 ans di def loo xamante ni naka su naka su dul noonu temps di circuler tamit ci réseaux sociaux yi mu nekk loo xamante ni ku ci ñu bëri ñu ngi koy ma koy waxee père de famille euh, loolu ban jàngan nga ci am ak tey ji boo leen doon conseil yéen conseil nga leen di ciy jox. dëgg la mën nañu jox suñu xalaat waaye nag père de famille moom <laughs> doonaguñ ko 100 pour cent quoi. ah mais même boo ko nekkul sax moom nga ñaan yàlla nekk moom. benn bët la amagu waaye <laughs> uh-huh. euh, mooy jamono bu nekk la muy reflété mooy la fa xew. la toll maanaam contexte ba la fa am. Uh-huh. ñun bu ñun boog si tolloo. Uh-huh. wax dëgg yàlla xale da doon yem place su xale. da ngay dem ba am vingt ans. da tànku neen di def sàmboor di dàq ji. di dawal ay mbege. Mhm. ñu naan da ngaa ñàkk fayda gëlëm si biir ba gi kenn xamul. Mhm. fekk yow leen dong la la santoon. parce que da jàng. Mhm. ñun dañ daan jàng dañoo fonkoon jàng. dem jàkka ja fonk diine normal ñu nu mag. dangay doon génn doomu jaamu fe bàyyi jaamu fekkal fa dóor la ba nga sonn. sa papa day génn ko doolil. ñun noonu la yare woon boog. ñu dem nag ba jamono ñëw temps nag wax dëgg yàlla amul woon yii amul woon ay internet ak ay voilà amul woon quoi. ñu dem ba benn instant gis nag internet bi am xale yi nag génération 2000 bi surtout laay waxa ah. ñu ñëw nag ànd ak moom. comme classe daa yi rek génération 2000 lañ bokk. ñoo ñoo ñoo génération bi xamante ni ñoo fekk ñoo ànd ak euh, internet bi gën dangereux nag mhm. waaye ñu gën a war a jël lu parce que je pense que mhm. événement internet bi mën nga ko utiliser à d'autres mhm. dem gëstu jàng parce loo bëgg en un seul clic da koy am mais roy moo indi yenn yi roy boobu nag ci biir la la woon. la woon parce que ñun li ñu doon doy ñun suñu temps mooy américain yi guddal ay tubay yóbbu ay casque def ay jëngal génn boo boo ko defee lay neex boo paree da ngay ñibbi kontaan bonde def yooyu xam nga mais léegi booy roy ñu yem ca dañuy roy dàq moo waral coow li bari ak tamit yenn ci série yi ma ko sañ a wax mais pourquoi pas ñu refléter les réalités sociologiques les réalités culturelles yu réew mi ay jigéen bu woddu yor calebasse jigéen buy julli jigéen boo xamante ni day xëy ngay xëy wàcc togg ci biir këramu yor njabootam mais sëriñ yi looy gis. mu nekk lu am solo. ay cigarette <laughs> ay sexe. xam naa mais day dem xale du mu nekk lu am solo xam naa jamono ji sax ñu bëree bari léeg-léeg dañuy am yu bëri yoo xam ne sax dañ koy mujjee fàtte mais Babacar suñu dernière question en tant que journaliste lan ngay ñaan sa lan ngay ñaax sa moroom yi journaliste yi ak boo sañoon lan nga bëgg loo xamante ni man nga ne gis nga ko ci métier bi te boo sañoon ñu bàyyi ko wala ñu wàññi ko bu mënee nekk. man ëpp naa si di conseiller ñooñ parce que ñi fi nekk ñëpp ñoom ëpp xam-xam duñ sama morom. Mhm. man daal du leen conseillé waaye dama naan nan àndandoo rek jëf lu baax. Mhm. buñ ko defee. Mhm. duñ sonn. loolu dong la lu baax jëf lu baax di koy def. ndax boo bëggee mu su bëggee mu bon day loolu dong la kon nit ki da positif sa àdduna. loo bëggul tamit ñu def ko def la ko. def ko sa waajur. def ko sa rakk sa mag. bu ko def waajur jàmm parce que ku fi nekk. ci kër nga jóge te nag da nga nekk waajur diw loolu la quoi nan bàyyi di toppandoo ay affaire buzz ak ay njëkkanteeg yu ni mel boo ko defee. ak luñ lay luñ lay dox denc sa poos ak yooyu. loo defee tey buzz suba génn keneen a koy jël partagé ko am si ay vues yu bare. maanaam affaire dafa mel ni safara booy taal. kenn mënatu ko tey wër àdduna mu nekk benn vidéo wala benn audio wala benn lenn lu viral wër àdduna. mu jóge si benn nit ngay pompé di jaay affaire. yaakaar ne def nga lu rëy. yaakaar ne yow la fekk du yow. Mhm. mënutoo ko def parce que ëllëg kenn ku mën a freiné. Mhm. maamu kooku wala boo doomu kooku bu màggee. ñu ne ko sa maam moo deful wala sa baay deful. mu nekk lu am solo Babacar tey euh, sa kadd yu mujj ak lan ngay euh, tàggatoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo lay bàyyi xel ci seen site bi di 24 actu. waaw 24 actu sa kaw sa kanam ni ngeen def si wàllu presse ñëpp gis nañ ko c' très euh, vraiment bon laay wax ni parce que da ngeen professionnel macha allah jox ngeen liggéey bi àqam. wax dëgg yàlla ay royukaay ngeen leen wax naan du courage fi ngeen bëgg àgg yàlla ngeen fa àgg di wax aussi na ñëpp siiw 24 actu mooy chaîne bu mag bi. <laughs> man de moom laay siiw. <laughs> jërëjëf Babacar Samb ñu ngi koy sant bu baax di ko gërë gërëm mu nekkoon tey ci suñu suñu gan ci invité de la rédaction euh, tey nag euh, yaakaar naa ne euh, kontaan nañ ñi nga xamante ne xamuñu woon kan mooy Babacar Samb xam nañ ko tey ñu doon waxtaan tey ci ponk yu yaatu yaatu waaye tamit rawatina ci métier bi nga xamante ne ci lay yëngu di métier am journaliste ñu ngi koy jaajëfal bu baax ci nangu gi nga xamante ne nangal nañu ko invitation bi yombalal ñu ko mu nekk loo xam ne lu am am solo la ñu ngi koy jaajëfal waaye tamit di leen santaat di leen gërëm yéen ñi nga xamante ne saa su nekk yéen ñi ngi topp ci site bi di 24 actu di leen sant di leen gërëm waaye tamit di leen jox dig daje ci beneen yoon ci seen invité de la rédaction beneen yoon ak suñu beneen gan incha allah mbokki yi jërë ngeen jëf